salaamaaleykum mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax di leen ziar di leen joxaat seen wàccuwaay bu wér-wér du nuyu kullum kuy safoo SBT rek nuyu naa la bu baax a baax ziar la jox la sa wàccuwaay bu wér-wér ñaan Sénégal yéen a fi jàmm yàgg ñaan way daw lii suñu borom yërëm leen te xaarante àjjana fiir daw si ñu feebar tëdd si hôpital yeeg si kër yàlla suñu borom fëgg seen bopp rawatina ñu caabi féete ginnaaw yàlla suñu borom may leen liberté ndax liberté dara daax ko te seen doon seet si mbër na ñëw seet si xale seet si ndaanaan seet si yaakaar mu jugee si journée moom duñ ko présenté dañ koy bàyyi mu nuyoo mbër nuyu naa la fay naa la Idi naka tey sant yàlla bu wér a wér mbaa yaa ngi jàmm waaw ginnaaw ma sant yàlla julli si bi sant sama ñaari waajur di sant gaay yi fi toog yëpp sama booy yi gis nga leen nii di sant champion booy ñaam di ko ñaanal yoon incha yàlla may ko di ko ñaanal sama bopp tamit parce que làmb noonu la kuy bëre yaay daanu ñu gis tey ñu ñëw fekk fi xale yëpp yëpp fekk fi tamit champion bi bëre démb muy booy ñaar seen relation yi ñaar lan la waaw ay mboq lañ ay doom nday lañ parce que ñoo bokk koñ bi kon yaakaar naa ne ñun ñëpp benn lañ sam booy yi tamit kenn demuñu des subaa ngoon gu dëgg ba sëg ñu ngi ñu ñu ngi ci man quoi kon loolu loonu rek sas la sas la instant bii incha allah rabi li si kanam raw li bët quoi nañ dem rek incha allah. nga mu bëree xale bi nga xam ne Tamla Sabé la daan na fi ku ne muy góose combat bi bëri woon coow yéen ñaar signature ak lépp lan la. waaw dañoo waroon a bëri rek xëy na yàlla moo waxoon dañuy bëri ñun ñaar rek. waaw mu nekk loo xamante ne lu war a am la te am na et puis ñu bëre ko ci ngor ci la ci fayda xam nga waaw yàlla may ko ndam ma xëy ñaanal ndam li yàlla na ko jig. dafa li nga waxoon da nga kaa dëggal da nga ne ko signature da ko dina dama lay waaw parce que man instant bi man lu ma signé rek noonu laay bëree ndax aw ma tànki mais nag xëy na yàlla moo ko tuddee woon noonu ndax parce que sama combat yi ma bëree yëpp boo xoolee li ma li ma li ma bëree daan moo gën a gaaw moo gën a yomb sax xeex bi euh, nekkul dama doon utiliser xeex carrément carrément mais xëy na keroog noonu la ko yàlla dogale woon quoi. ku xamoon Poulum junior xamoon Poulum junior day bëre bii ñu ñëw gis Poulum di xeex. waaw mooy jàpp rek daan laa xamoon man da ñëw rek ma jàpp la daan la mais bi yoon maanaam xam nga loo gis loolu rek dafa am lu ko waral parce que moom jotoon naa sama benn ki ma war a sotti galaaj ba gaañ ko xam nga. loolu waaw. soo ki may sotti galaaj moom la moom lañ joteel ba gaañ ko léegi bi mu ko gaañee kooku war a ñëw sotti ma galaaj waa seen ni ko tamit doo dugg ndax da ngay naaj. waaw parce que nee nañ dafa doon nàcc moo tax du dugg quoi. pour man cumukaay bi moo war a ñëw ci biir géew gi defar galaaj yeeg yooyu. waaw cumukaay bi loolu mooy yoon parce que cumukaay bi moo wuti galaaj moo xam bu ñuy naan moo xam bu ñuy sango moo xam bu ñuy takk ñun xamuñu si dara dañ naan takkal ñu takk naanal ñu naan xam nga kon ñoom buñ ko teree ñoom ko buñ ko teree loolu noonu damaa handicapé et puis tamit maanaam ma bëree xol quoi parce que man loolu noonu jàpp naa ko jàpp naa ko ba sama xol xam nga loolu jàpp naa ko ba ba sama xool xaw si tàng moo tax ma ñëw bëree noonu mais man daaw ma gis sax may xeex xeex bu bare noonu mais yoon yamul ci benn. incha allah waaw. sëb nekk ñu gis mu bàyyi yitteem yëpp ñëw ma gerte moom. boo ñaan nu naan. waaw maa lay fay ginnaaw bi ñu sant yàlla julli seent bi sant suñu ñaari waajur di sant sama yaay ak sama papa bu baax a baax ndax dañuy sonn si man quoi di sant sama yaay Mariso bu baax a baax waaw di la sant di sant baax a li mu fekk. waa di sant mbër Pulum di ko ñaanal xam ma jaamu ak feex di sant waa gox bi ma fekk fi yëpp tey xam ma ñu nekk ay dëkkandoo yu baax ñi nga xamante ne xam ma booba léegi ñun dañoo naqaree dëkkal mais booba léegi ñu ngi maîtriser quoi bokk ak ñun échange boo ñu fekkee da nga naan ñoo bokk ndey ak baay waa di ci sant bu baaxa baax di sant gaay wér a wér di sant waa association bu baax sant sama jigéen bële Mariama xam ma li yëpp moom moom la ko waa moo ko waral waa di sant mbër di ko ñaanal bu amaatee combat yàlla may ko ndax xama mu doon ndam li ko jik ay ndam yu sax sax waaw ci barke sëñ Touba. démb nga bëre tey ñu xëy ñëw fekk la waaw parce que man fii laa dëkk man booñaa bu Malika laay wuyo kon Malika entier laa dëkk quoi waaw kon boo ñëwee boo ñëwee fekk ma fi war na waaw Malika amul frontière quoi man aw ma fi sens interview fu ma neex laa jaar noonu la demee. booñaa combat bii nii sa digganteeg Thiandoum nekk nekkul woon sa digganteeg Thiandoum 2 jël Thiandoum parce que dañ ma jox lu mat quatre adversaires ñu bañ waaw ñu nekk di entraîné xam nga entraînement yi métti te mënoo di entraîné di xaar quoi waaw léegi bi ñu imposé Thiandoum 2 ñu jël ko gëm ni nag mun nañ koo daanaa gëm ni da ba ficelé si gaaro waaw dem nañ ba estade war a def jàkkaarloo ñëwul waa après si lañ ma woowaat dama gaaro gaar mooy loolu quoi nee na delloo na avance bi affaire yooyu non gars ay ragal lañ laamu ji mooy loolu. nga jël càndum 2 est-ce bi ngay jël càndum 2 xamoon nga càndum 2 à 100 pour cent. non càndum xamoon naa ko nii rek mais après bi ma jëlee combat bi siibur naa ko ànd ak sama waa Ikri di sant père Jimboori Marley xam nga Baye Matar di ko sant bu baax a baax tey sonn si man di sant Aliou Seras Aliou Seras. caaroy lay jógee chaque jour 4 heures Malika la koy fekk mooy xaar quoi waa équipe bi yëpp ñoom alaaj Diop di ko encouragé moom it quoi doomu jàmbur waa di ko wax noonu la quoi waa ñëpp gis nañ quoi noonu la demee di sant samay kët si bu baax a baax ndax dañuy sonn ci man. nga jóge si bés bu mag bëre bu bëre drapeau ki nga xam ne symbole la woon fii si Sénégal mu Ndongo Lo fi ñu toll fan nga jëm. waa gis nga drapeau bi gëm nii dañ koy jël moo tax bi ñuy ñëw suñ tiset lañ def bu baax indaale ko yàlla dogal loolu mais bi ñu wanee wane wuñ ñàkk fayda wane wuñ yaafus quoi waaw liñ si waroon lépp def nañ ko yàlla xañ ñu ko mais teewul bi ñu teree bi xëyee sol nañ suñ tiset savouré comme d'avant waa ndax képp man supporter booñaa bu nekk rek xam na ni booñaa moom mooy loolu quoi soulagé la xam jaamu nii yaa ma gën a xam. booñaa fu jëm. waaw instant nii mooy gars yi fii koo fi tudd rek mooy loolu. waaye fi ñu toll nag Boy Niang war na mën a xam adversaire yi nga xam ne ñii mën ak ñoom lamb boole nañ sax bu ma leen tuddee jaadu na. waaw dëgg la mais xam nga rek adversaire yi moom da ngay tudd ñu ne dafa pare ak affaire yooyu xam nga damaa pare ba pare. waaw loolu la demee ba ci ndongoloo moomu sax buñ ma ko joxoon ma jàkkali ko. xanaa man jógewu ma si defet. non loolu dara. di ñëw rek mooy loolu noonu. may ma jàll quoi ndax échange yi gars yi dañoo soxla di sant mbër di sant gaa yi baax a baax émission bi xam nga rek émission jaabur la yaa waa gis nga loolu leer na ba baal ñu faa ñu dafa leer noonu la demee ah, merci waaw yow yaa ma gën a xam sama gaa yi bëgg naa la bu baax di sant panam xam nga waaw di sant sama yaay Mariso aw ma fayam day sonn si man waaw day sonn si man guddeeg bëccëg moo ma yor lekk ak naan aw ma fayam di sant sama patron Mor Kebe suba ngoona ah, guddeeg bëccëg yenn saa yi nga nga jaar paak ba fekk ma fa mooy loolu ay Hercule di leen sant bu baax a baax mu nekk grand bu baax waaw di sant futur maire xam nga Ahmed Ba di ko ñaanal jàmm ak feex di sant waa Pastef yëpp di sant grand alfa ndax waa équipe bi gis naa seen taxawaay ko waa seetaanuñ ma tamit benn yoon waa di sant sama gars yi may àndal xam nga gars dañuy sonn si man bu baax ku dégg bëccëg duñ nelaw sama booy Siteu Thiat Ibou Diallo xam nga Babacar soose di leen sant bu baax a baax di sant sama rakk nag Amo bu baax di sant Mariso xam nga di sant Mariama bu baax kii sama jigéen la moom bi ma jàppee ba tey xaddiwul quoi bàyyiwul benn yoon tey bu lii nii amee moom bokk na ci xam nga moo ko dox quoi di sant yàlla bu baax di sant sama gaay ñoom Massamba Fuus Boy Diop maçon spécial di sant ñoom Mothiaw laay sama papa sa guddi dama laa indil ginaar barki sëñ Bamba Mbacke billaay wallaay moo koy sant bu baax bu baax di ko wax père xam nga affaire yëpp dina ñëw bu soobee yàlla ñooy sa ginnaaw di sant Birane ay Ousin Ousin sii bi di ko sant jàpp na si combat bi di sant ñoom Mara Thiam xama di sant Idi kii nu mu tudd sax Issa mi France maa ngi koy sant di ko ñaanal jàmm xam nga moom it jàpp na si combat bu baax a baax waaw noonu la demee di sant sama gaay nag combat bi barki sëñ Bamba Mbacke génnee nañ xaalis bu bari lu mat ay deux cent mille xëpp ko si ñii ngay gis nii rek ñu toog ne bilaay wallaay di leen sant bu baax a baax waaw waaw parce que démb boo xoolee man bi may ñëw sax ñëw moon pour xeex ndax dañ maa yeb ñi ne ma xeexal ñi ne ma bëreel mais bi ma ñëwee moom ni mu taxawee laa xam ne kii parewul pour dellu ginnaaw ndax bala maa sànni beenu ku xam ma méb naa ko waa bougéwul si laa cokkaas noonu di sant yàlla daal xam ma di wax ni combat bi càndum barki baa Bamba Mbacke lu tax ma laaj avance bi jël ko dañ ma woo ma avance càndum moo fi nekk kenn nangu koo jël mu ne cinq nit dañoo delloo avance am cinq mbër ma laaj ko jël ko te gëm ni nag bu arbitre bi sifflé ma dox si kawam jàpp ko daan ko te loolu laa gëmoon naa ah. te moom laa moom laa bëreeg moom waaw bëre nañ xeex nañ ma duma ko bu baax ba mu tërëf ma daw jàpp ko xam ma mu daw fiile ma ma génn si xam ma ñu bëre daal mooy loolu waa noonu la demee ba yàlla may ko ndam. càndum saison bi fi mu ko tegee tournoi Yeumbeul jëm Malika ba lay tegee koogul. waaw. xam nga si waaw mais munul ñàkk mais man damay dugg géej waaye de du ma fa bàyyee. kon pare ko. yàlla tere. waaw ah, daa këpp nga bëgg a yàlla tere géej waaye du ma fa bàyyee. mais après liy ñëw mooy dàq quoi. waaw ñun ñooy waajal ñu ngi si entraînement bu baax a baax di sant sama waa koñ nag bu baax dañ siy jàpp boo xamul bu may génn fii da nga naan ay millions lañ ma may barki Serigne Bamba booy mooy loolu tiset yi fu ne la ñuy dem di kose xam rek mooy loolu quoi ñëw jàpp ko si bu baax di sant waa Barça booy nekk fii petit Barça dañuy jàpp si affaire yi ñoom it bu ma amee combat xam nga bu ñu doon football chaque dimanche dañuy terrain fees mais bu ma amee combat doo fi gis kenn. ma koy sante yàlla nag bu baax di santaat gars yi di leen wax ni xam nga gis naa taxawaay bi daal moo ci am solo gis naa ko bu baax di sant sama booy bi Pape Samba xam nga ñoom Ama Jean xam nga di leen sant bu baax ñoom Amet ñoom Saasu xam nga booy dañ si jàpp bu baax a baax instant ni mooy loolu quoi bu ñu noree sant ñëpp rek ragal naa ni mooy loolu. waa amul benn problème nga ñëw fekk ma si Malika mooy loolu noonu maa ngi santaat sama yaay bu baax nag da siy jàpp. waaw suñ Boy Niang la nekk écrit jimbool sax suñu xel ñu koy may ko liberté moom at bébé Diène mi fa nekk suñu borom suturaal leen kattanal leen ndax dañoo bokk si làmb njabootu làmb lañ kon ñu ngi leen di ñaanal bu baax ñoom tamit ñu dellu siwaat si ñun ndax ku ne écrit bi nga nekk soxla nañ la yaakaar nañ la gox bi nga nekk soxla nañ la yaakaar ñu ngi ñaan état ñu si ñaari champion yooyu ñaari ndaanaan yooyu caabi da leen féetee ginnaaw suñu borom may leen liberté bu baax a baax a ñoom ñaar Boy Niang ñu ngi lay remercier bu baax a si bébé Saloum moom nga wax falaa waroon njëkkee sax mais doomu aadama motul quoi xam nga comme moom mooy suñu tedd fil yàlla teg na ko nattu ñu koy ñaanal xam nga fi mu nekk mu jugee fa dellu si parce que ku baax la quoi nit ku baax la moom la ma woon xam nga daanaka moom ma yar ba bi may mbapat moo mu doon yóbbu di ko sant xam nga di ko ñaanal mu jugee fi mu nekk dellu si si ay njabootam xam nga di ñaan état ñu dimbali bébé Saloum xam nga rek mooy loolu ndax mooy loolu quoi soutien de famille ñun ñi nekk ak moom xam nañ loolu heural nag mënul ñàkk xamuñu moo def wala deful xam nga waa di ñaan jaamu daal di sant sama gaayan bële Amet Amet mooy luur bi moom moo may jàppale ci yu bari xam nga li wala di sant mooy lool noonu kee gënul càndam gënu koo diis de gëm-gëm boobu lañu ñu àndal rek dem ak moom yaa ma a xam ñëwaat Touré ñëw si Pulum Junior Pulum sa digganteeg Gose sa digganteeg Gose léegi arbitre sa digganteeg Gose waaw loolu làmb la woon rek ak ñu bëre xam nga ma jàpp ko bi ñu jàppante mu commencé ñu dóorante ñun ñaar dóorante dóorante après moom dóoru sax moom da jàpp rek la bëggoon. mu taw dóoree bu mu def trois bi. waaw boobu maanaam dama ko dañoo jàppante xam nga moom ñu jàppante dafa gaaw daw jàpp léegi man maa ngi moom ñuy bëri di bëri di ba ñëw ba ci wetu saako yi xam nga si laa si ñëw si ñëw jàpp ci përëg bi përëg bi ay ay élastique moo fa nekk xam nga si laa téye noonu duggaat ci biir.